mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naa li mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi ak mboolem kilifa diine yi di siyaare ci tey jii sunu kilifa sunu xarit suñu wëllëre sëñ Cheikhul Khadim moom Serigne Sidi moom Cheikh Abdou Lahad di ko ziyaare bu baax a baax di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko waaye yàggal e, kilifaam gu baax gi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot Cheikh Abdou Lahad muy Serigne siidi sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko nuyu kilifa yi ñu ci fekk mu Moussa moom Serigne Abdou Khadim e, moom Cheikh Mahamadou Lamine di ko ziyaare bu baax muy wala réew Serigne bi. kilifa yu bax yi nga xamne fekk nañ leen fi ci jotaay bi serigne mustapha serigne mustapha euh di sante yalla yit ci bis bi ni nga xamne ne ni leen ko doxale lepp tege ci ndigal muy jang alquran ak jang xasida ak bernde nga xamne dajje bi bu amul it li daan dundal bis bi lepp mi gam am te moo di euh, ak khasaidi yi def ay ay ay bernde béréb bi nak ko ko ko ku sunu jëm min nako ci nu diko and ak serigne bi ak mu jot lolou motax tay ji nu jog ñew ngir ndax li nu boole dafa bari la ci jitu mooy day day sunub sëriñ ba nopi di sunub xarit di sunu soppé nu naw ko nak ci ay melokan yu bare bare ak taxaway bu yaatu bo xam am nako diko ñaanal yalla sunu borom katanal ko mu kini ki ni fatlikou tay di Cheikh Abdou Lahad jullit ñëpp nañu ko taalibe yëpp amel nañu ko njukkel waye kuy doom aadama it amel nako njukkel ndax dafa dafa dafa dafa dafa sàmm li humanité xam li tax sunu borom sak doom aadama wacc ko ci kaw suuf mu remplir lepp nekkon borom muamala hasana bo xamne ne jëflante bu rafet digganteem mak julit ñi ba ci ñi nekkul ay julit sax mu xolé leen jëmmi doom aadama ndax sak gi leen suñu borom sak kenn ku ne mu jox la way ba nga am. liggéeyal Sëriñ Tuubaa liggéey boo xam ne it euh, histoire mënatu ko fàtte mukk mu jël dundam gépp jeexal ko ci liggéeyal sëriñ bi jeexal ko ci liggéeyal njabootu sëriñ bi nekk koo xam ne ku ko xam-xam ne it mm, responsable la bu gàddu ay responsabilité am kon dégg na la yonent bi salaa salaam waxoon ne kullukum raain wa kullu raain masulun an raiyati kenn ku ne ab sàmm la te des na la laaj li nga doon sam li ma doon wax dong ngay terbiye Cheikh Abdoul yi doon len ko wax ma len Cheikh Abdoul day sam bu meuna sam ndax dafa reggal te ruuralut reelalut lim mu doon sàmm macha allah sàmm na ci samene rafet jur gi mu doon samit mandal na len reggal na len te ken reerut ruuruñu mooy tooñuñu wàccuñu yoon ñu war jaar kon mom sam na lam wara sam lepp muy ko xamne it mboolem umma islaam bi yëpp dañu ko dañu koo fonk ndax dafa nekkoon jënn jëmm joo xam ne dafa wéet ci jamono ci ay jikkoom ak meloom ak aw doxiinam jàngal nit ñi sëñ Tuuba teel leen ko joxoñ nit ñi xam leen xamal leen njariñul adduna li ak njariñul alaaxira nuñ ko mën a jariñoo ñun ñun waaye doon koo xam ne it dafa am dundu ñu sellu mu daan dundu wo xamne ci ak jamm ñi ta am ko ko misal ci kenn ci ay ay bokk mu sëñ Abdoulahi Jaxate mu sëñ hamzatu waxo na sëñ Abdoulahi dey kep ko xamne la ngay def ci tayef rek nga ko tek dana la ca top waye ku joom dalay bal baal ki reer nak mom du faale ci ñak reeram goge nga xamne ah, ah, yutabi'ul mar amdin wa yas'u an diqalatin wala yubali billati jahila waye ci bir nak da ko da ko caa wax nako ya yaa ni'matallah fil afaqi jumlatiha ya man ka fi'ala kal ihsani ma fa'ila xéewalu yàlla la go xamne dafa daj gox yep mom Cheikh blad ne fo dem ci aduna bi rek fek ko waye nak nag say jëf nim rafete ken mo sa jëf-jëf ju rafete loolu kon nak setam bu bax bi nga xamne ñu ñun Cheikh Cheikhul Khadim momi taxaway bi mu am moy loolu rek te nun war maal njabootu sëriñ bi daf ñoo war ak fonku len roy nag koo koy def da da da da lay jiitu ci yoon wi dox dox yin woo doxul mel melokaan woo melu ndax moytandiku ëkk moom da nga koy moytandiku ngir bañ a gaañu waaye bokkul ak nag jaar fa di ko defaraat loolu am na loo cay xemmeem ak jeexintal yoo ca gis te ba ñu àndeeg léegi yàgg na waaye mosuma dégg wala ma gis loo tax nu yabee yoon wi jaare ko ci moom ak ni jamono bi pëccëxoo ak fi adduna bi toll fi ne ak noonu lislaam yi ak noonu sëriñ bi ni ñu yàkkamtee lu bokk ci sëñ bi wax baa mu jëf luñ amee bunt ba wax lu leen neex loola sax coono rek la leen di jural ndax kalla wala yu dana sul mutahara xawlu sawit dana si ma tatahara li yàlla laabal ba noppi làmmiñu ku bon ku ku ku yor lu ñaaw mënu koo taqal li faral di wax gaañ ne le mécanicien yëpp mun daje woon yor huile di fi tax ki ba ba si mooy sëñ Tuubaa ak ñoñom kenn mënu leen a mënu leen a taqal yàlla setal na leen waaye boo ca yoree doxin woo xam ne nag ku la gis xemmeem yoon wi ndax defe naa ndaw ñu bari tey e, jàng nañ am xam-xam yeewu moom mi mu nekk seen sëy te kon settee nañ te nouvelle génération bii moom dañoo jafee jëflanteel ndax ay ndaw a nga ci ñu jàng ndaw a nga ci ñu bëgg àdduna ndaw a nga ci ñu bëgg alal ñu xamul dara nga ci kon kun mën a topp rek te am na point yoo mooy ba tax ñu mën laa fonk alhamdulilah loolu lañ ciy sant yàlla baax Mbàkke di la ñaanal yàlla yàlla na nga egg li nga bëgg sëñ bi yàlla na am toog nañ say jataay fekkee responsabilité yi ngay jël engagement yi ngay jël li ngay delloo taalibe yi ci aw yoon loolu lu jafe la kon nag sëñ Tuubaa moom ku nekk moom rek mu ne ci yow sëtam nga say maam yëpp ngërëmi sëñ Tuubaa lañam am moo xam muy sëñ Madiba la moo xam muy sëñ Daaru Asan Njaay kon nitu ngërëm nga nitu leer nga waye nga jëf sa yi bop nak ba fi ne tay bu ne sëñ Cheikhul Khadim rek bo ci andiwul sëñ Sidi wala wo ci ben dakantal sa jëfi bopp may na la nga marqué ci apprenti ci bir yoon jubóog say bokk legi waxna ko li gëna jafé jafe dajé bo am sa bokk yépp nga fay dajé ndol dajé bu amit ñu gis la fa té lolu yëg gi rek ko waral ak yitté ji kon nak no ngi sante di jégalu kaddu yi xaj wajalu ñu ko won waye bu den ndigal bayiko ci yow dañu koy jafé no ngi jégalu baax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh